yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital si nuyoo bi sunu xalifa sëñ Muntaxa di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool su may ko wér ak mbooleem waa kër Seexul Xadim bi Euh, ñëw rek ànd ak euh, sëñ mbay mi ak sëñ Ousseynou ak sëñ bi Ndiaye si ndigalu sunu jëwriñ sëñ Mamadou Ndiaye mi nga xam ne moo jiite liggéeyu Touba Bilbao bi ak mboolem ñu ko àndal euh, di ñëw di joxe si àddee Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne waa Bilbao ku ne xam na leen si liggéey boobu ñu ñëwoon rek doon siyaare waale ak di ko jébbal sunu kilifa yi sëñ Abdou bu Bousso ak ñim àndal ñëpp nga xam ne an mu jot rek euh, moo koy taxaw ak ñim àndal euh, waa bil Bilbao nag euh, ñu ngi xeeb lool li ñuy def donte ñu ngi si góor góorgóorlu waaye ñu ngi koy xeeb lool ndax boo ñëwee si jumaa ji ak liggéey bi ni mu demee ndog yeeg mbooloo meek yëpp rek loo si joxe rek da koy xeeb kon nag daal nan gën dolli Pastef bi bañ a gestu sa xam ne euh, liggéey si Moukhaddamatoul Khidma mooy liggéey sëñ Touba euh, liggéey bu rëy rëy la euh, kon nag nañ si gën a pasteefu bu baax a baax rek xam na lii rek moo am solo maa ngi soññ sama mbokk yëpp daal ñi nga xam ne ñoo bokk nekk Touba Bilbao ak li ko war lépp di wax nag si ndigalu suñu jëwriñ sëñ Mamadou Ndiaye ak mbokki taalibe yi mu bokkal liggéey bi yëpp Euh, kon ñu yamale foofu kàdd yi di sant suñ kilifa yi nga xam ne ñoo jiite Muxaddamatul Xidma nag seen liggéey rafet na lool satim saa su na rek ñu ngi ñuy bàyyi xel nun waa Bilbao di am mbégte lool ànd ak ñoom liggéey bi ndax seen liggéey moom macha allah kenn ku ne war na see jàpp Muxaddamatul Xidma moom kenn ku ne rek war na see jàpp ndax mooy mooy mooy liggéey bi waaw mooy liggéey sëñ Tuubaa kon nag nañ si gën a góor góorlu bu baax a baax ñu jéggal bu baax danoo mënut a wax nag. ñu bu baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa di nuyu di di si jiital siñ sang bi di sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacké di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér. ak mboolem njabootu sëriñ Touba yëpp ñu ngi leen koy ñaanal di koy ñaanal siñ kilifa gii nga xam ne moom la sëñ bi ñoom la sëñ bi dénk liggéey bi liggéey bu rëy bii di Moukhaddamatoul Khidma waaw ñu dend ak secrétaire général bi sëñ Abdoulaye bu sa waaw di ñaan yàlla si barki sëñ Touba ñu yàgg kaa indi tamit te yàgg leen fee fekk waaw ñun waa Touba Subul Salaam nag xeeb nañ lool liggéey bi waaw ku ñëw tubaa ba gis ni liggéey bi nu mu fi demee dana tax boo delloo da nga gën a góorgóorlu gën a fas jom boo doon daf fukk da nga jéem a daf ñaar fukk teg moo tax sant nañu baax gërëm nañ leen sant nañ leen liggéey bi nag mi ngi war a toll si six cent mille téeméeri junne ak ñaar fukk xeeb nañ ko lool nag waaw ñi ngeen ñaanal ñi buñ demee rek at mi ñëw ñu mën kaa doublé si ngir jëm sëñ Tuubaa ndax sëñ bi àttan na ko mën na ko si barke sëñ Fall jërë ngeen jëf wasalaam ñu ngi jégalu bu baax a baax kàddu yi nag waaw ah, di sant suñu mbokk ñu fi teew di sëñ Ousseynou njaay ak sëñ Pape Sylla Ndiaye ak sëñ Abdoulou waaw ah, ndongo xeebu mbay tudd Mbaye Ndaw moo doon wax ak yéen asalaamaaleykum wa rahmatulah. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di bu baax dalal sunu mbokki taalibe yi di waa daayira subulu salaam Touba Bilbao e, ci njiital sëriñ Mamadou njaay ak sëñ Fallou Dia mi nga xam ne mooy coordonné liggéey bi e, foofu liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma ak bokk taalibe yi di leen sant bu baax yéen ci teewaay bi ak coono yi ndax xam na am na ci ñoo xam ne ci yéen fi ñu jógee sori na waaye Pastef rek moo leen indi ak koor gi. di leen di sant bu baax di leen jaajëfal di leen nuyu ci turu sëriñ Afee so mi nga xam ne moo jiite liggéey bi waaye kilifa yi toog wutu ko fi ab Abdou bu so mi secrétaire général bi sëñ Fallou Mbacke moom moo jiite organisation lépp lu ci wàllu liggéeyu gi ngeen di gis ak ak liggéey aju ci daayira bi sëñ moo jiite moo yor wàllu communication bi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant ci jëf ji nga xam ne yàgg ngeen koo jëf moo xam ci koor wala ci màggal ci social bi ngeen di indi ak waxtu nekk te muy diir bu yàgg boo xam ne pas-pas yi day yokk waaye dara wàññi koo ci xam gi ngeen xam ne bokk na ci lii bëgg-bëggub sëriñ bi e, jumaa ji da cee bokk lool te ngeen bàyyi ko xel ba tax waxtu wu nekk saa su nekk ngeen di jëf te yokk pas-pas yi tañ man cee seere lu bëree bëri ci seen pas-pas ak ci seen taxawaay ak euh, xam tamit li bëgg-bëgg sëñ bi ngeen koy dàkk di ko ci def kon nag bépp taalibe boo xam ne euh, jëfoon nga ci euh, joxe ci sa addiya mu jëm ci ndog yi nañ xam ne jëf ji agsi na ci jumaa ji incha allah des na leen ko defal ci liggéey bi kon ñu ngi sant bu baax di ñaan suñu borom ci darajay Sëriñ Tuubaa mu ful ko te yokk man-man yi ba nga xam ne lu ci waay def rek bu ëllëgee loolu doon asakam sëriñ bi nangul ñu liggéey bi te am nañ ci yaakaar bu baax a baax.